السلام عليكم ورحمة الله بوك انترنت شن فبل تي في نونا لين بو باخ باخ زيح لين كيب كو خمان تنا نغا بيسي شن بول خار ابونيل كيل كيل سكولا بوم غيك فيديو بو ندوغل نغا مانكو سيتام بول فاتي تم فيديو بي سي تريز امبورطان لو كن خلات وون بن يون موي ليونيل ميسي جوغي باخ سولون دي سيني باريس سان زيرمان كولا روحان كان دينا ديت نا بين خامي ليونيل ميسي باتاي بي راني فوبول باتاي ميسي باخ سولون نكا غيس موي فوبول اوسي نيم بيغي كلوب بي بوكس زوري كنا من فوبول تي استوار بي jamono bi mo ngi Paris lu néew moo des mu signé maanaam moo ngi Paris gis nañu supporters yi gis nañu voilà ñu ko acquérir du côté de France léegi nag lan la ñu mën a wax mooy que bu demee Paris Saint-Germain dina fa fekk ñaari gaynde ñun Sénégal yi lan moo ñu gën a intéressé mooy que Idrissa Gana Gueye bi xamante ne moom Paris Saint-Germain bu gisee Lionel Messi pour man war na mën a jàng lu bëri maanaam si côté leadership si côté expérience si côté technique lépp loolu lañ xalaat genre joueurs yi dañ lay jàngal damay fàttali nag Lionel Messi da doon wax ne Ronaldinho Henry Ibrahima Bis ñoom ñëpp ñi xamantene fekk nañ ko Thierry Henry sax moo may gën a wax ak keneen ki euh, Ronaldinho jàng na technique muy expérience muy grand rendez-vous ñuy taxaw na gis Idrissa war na a ci franchement ku Messi même si am expérience expérience Messi am ko ko ngay six ballons d'or discuter ay finale Ligue des Champions si vestiaire lu mu la lu Idrissa Gana Gueye bu boobaa loolu mën na ko andi équipe nationale du Sénégal suy défenseur bi itam Abdou Diallo moom moo war a gën a jàng ndax moom défenseur la ngay côtoyer Mbappé côtoyer Neymar côtoyer Di Maria ñu ne déet nga jël joueur bu xamante ne bokk na si ñuy dàq a dribblé wala mu dàq fay dribblé sax muy Lionel Messi loolu di nga si jàng lu bëri ba tax na daal gis naa ne la fait que mu signé Paris saint mën na servir suñu ñaari gaynde yooyu yeneen gaynde yi xamante ne voilà ñu ngi bitim réew dem seen compte Instagram yeneen ñu ngi koy publier ndax franchement bett nañ ñëpp ah bu ñu xamee Lionel Messi Barcelone moo ñu xam ko gis ngeen ne Barcelone dafa am problème xaalis Laporta expliqué na xam du ñu ñëwaat si histoire bi mais li ñu mën wax rek mooy que lu néew moo des mu signé Paris saint te information bi information gënu ko rëy samp France itam dinañ si gagné lu bëree bëri ci côté visibilité ci côté tamit suñu ñoom in Pape Matar Sarr ñoom in John Lépine ñu mëna a côtoyer Messi pas bokk ak mom vestiaire mais di ak mom rek dara la ci carrière ndax Messi mom pour nga jàmmaar ak moom soit Ligue des Champions wala nga nekk feulé Amérique mais bo nekkee ci yenn club yi do mës a am sens mëna a ak Lionel Messi xana amical sax la wax en tout cas daal jàpp leen information bi mal li ma ci gis moy que suñu gaynde yi muy gande gay muy Abdou Diallo seen équipe non dina gën a dëgër ak Lionel Messi mais war nañ ci mën a jàng lu bëri donc mbokk yi ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen su Senfootball TV